jaraaf mooy doomi Mbay Ndoye ak Alsaan Ndoye di doomi maam ñaañu kan ak bëgguma kan sa sa mbaaw encore. waaye kan mooy jaraaf Youssou Ndoye. jaraaf Youssou mooy sëtëb Aliou Ndoye ñi sanc Wakaam bii en 1601. Lébu jaraaf di ko dëggal moom ak santam wii de kenn ëppalewu ko ci askanu lébu gi. kuy oyoo lébu rek fii da ngay sant walla sa yaay sant Ndoye wala sa maam mi jur sa yaay wala ka ka juraat sant Ndoye képp koo xamante ne amul lenn suñu sant Ndoye si li ko meññ double bu dolli la bu lay tudd. jaraaf jàng naan jàngul. dugg naa alxuraan waaye soriwuma si dugg naa école CM2 laa yem. ne nag am nga lu la gënal. moom li mu gën a bëgg mooy. nit looy def. na nga si am fulla na nga am fit na nga mën a dem nanga nga espérer ne da nga siy génn parce que yàlla mooy may. ci wàllum politique ndax jaraaf mas na caalaal. politique jaar naa si. mu ne nii yoon daf may ne ma ànd la ki nga xamante ne mooy borom réew mi. lan la gën a bañ ci àddunaam. li ma bañ moo la réew ma boy comme nii ma gisee woon Côte d'Ivoire daw ma Côte d'Ivoire de waaye dama gis rek nit ñi la tëdd ay góor ay jigéen mais dañu dee. ma gis ay wañ di leen biliw biliwee te kenn mënu si dara xam nga loolu image la boo xamante ne daf ñu war a jàngal ñun leçon lañ ko war a def pour éviter loolu. ku ne nag xam nga musique ni mu mel ci Sénégal léegi jaraaf lu ci xalaat neex naam neexul. musique dafay dundal xol damay wax faral di wax ne ndënd yii ñu di coow naa nekk na lekk nangam nangam ah ndënd dafa baax ku bëgg a dugg àjjana xam luy fecca xam booy feccee lu lay yëkkati laa da nga xam lu lay yëkkati ba ngay toog di fecc seet loolu ngoon buñu yàlla ne eh non affaire la yooyu bàyyi leen ko ne waay na fa yendu fu ne waay na fa ee ku demee ba sëcceen fu ne nit dugal boo boobaa ndey doo fecc da ba ba ba ba man damay fecc ba ne saay waa jaraaf sax moom ay atam fu mu toll. sama âge masuma ko joxe. wala sax bokk at mi nga xamante ni moom la gane si àdduna bokk. déedéet bàyyi la ak nu denc ka li ngeen ko gisee ci présentation bi jaraaf Youssou Ndoye bu Wakaam mooy suñu gan ci sortie mbokk yeeg xarit yi seetaan ak déglu dal nag jàmm ci seen émission jaraaf maa ngi lay nuyu. nu ngi laa fay. Sénégal gépp di nuyu àdduna bépp di ñaan yàlla dolli jàmm ñëpp may leen jàmm ji bare bari may leen ñu dund ba doyal seeni may di baawaan. Mhm. li ñu teewoon ci Sénégal mu la pétrole ma am ci dégg-dégg na mu ngi fi. yàlla nañ ko euh, toppatoo ba mu doon xéwali Sénégal Sénégal mel ni mag. Mm-hmm. yàlla nañ ci yegg ak jàmm. ñu doon nag euh, waxtaan wi euh, ñu gis ne fitna dafa yeewoot ci diggante Ngor Yoff Wakaam ay ndaw jóg ni daal seeni suuf nga xam ne seen i maam ñoo leen ko fi bàyyil. ñu sàkku nag ñu jox leen ci seen moomeel ndax gis nañu ne ñi ne ci boppu nguur gi dañ ko dogot dogote di ko pàccoo ci seen biir ñu jàpp ne du yoon taxawaayu ndaw yooyu ci biir euh, Ngor Yoff Wakaam noo ko gisee. waaw Ndeye Fatou xam nga information na muy ñëwee est-ce que noonu lay nekkee waaway déet mm. information. man su ma koy xool da nga koy wéer diggante le ak la waaw bu ma waxee le ak laa ku nekk ne kii déedéet le ak la le fourneau la man jàng naa école ba pare te xaw ma sax le la ñu wax laa la wax information mel ñu wax ne nguur gi dañ ko du nguur gi ñoo ko paacoo. xam nga euh, bu fekkoon dañu am jot. dañuy toj lépp mu leer. mais ci tënk rek mais ci réew. président bi fi toog gis moomu pàccoo lii fi nekk ay nguur a fi jaar nguur yooyu fi jaar kenn ku nekk am na loo si def mu wéeru peut-être si sañ-sañ mën na ne parce que réew mi tam ñun ñëpp ko bokk na xam nga. Euh, di nga jékki-jékki dégg ko ne la voilà jaraaf yi su ndooy day def lii day def lële day def lële day def lële mais yooyu wax noonu jaraaf moo def ni suuf si wala moo def naa lan la lii tax ma def ko maa ko sañ wala lii tax defuma ko sañu ma ko mais problème bi mooy je le dis haut boo seetee suuf loo xam si coow li ñu seen télévision ak yooyu da ngay suuf si. Uh, uh, ay maam ak moom ay tool la ñu yu teg jël moomeel la dañ cotiser am na ñoo xamante ne ñu ngi soloka am bi coow mag gëmee ma seen maam sax bokk si amuñu si dara am na sax ñoo xamante ne seen maam bokk si mais seen i liggéey dañu xëyoon a xëy comme ñoom amoon nañ si tool ñu jël waxam yóbbu ko police booba ñu koy laajoo face à Ndar waxam gañe leen tey jii ñooñu ñooy nekk ci biir jumaa ji di toj dëkk bi te lax lan boo xam bu gañee say ndijaay wala say maam loolu tax nga en en baaxul voilà te kat ni ñu wax si dafa am ci ñoom seen biir loo xam ne seen i maam dañ leen gañe woon non non non non loolu si suuf loo xam la mais suuf si ñuy wax ni aéroport bi aéroport bi ne nañ nañ leen ko jox ñoom dañ ko ittewoo dañ ko ittewoo d' accord mais loo xamante ne dañ ko réquisitionné woon d'accord naa si lenn réquisition Sénégal moo war a xoolaat boppam si loolu suuf soo jël si waa ndàngal ma soo toogee ba soxlaatuloo ko dañ ne la da koy cinq ans après da nga koy delloo borom bu dee bateau Sénégal di xareex keneen mais am nga droit réquisitionner bateau bi fay ko euh, franc symbolique du loolu wax mhm. bon mais tey mais nga dem Ngor am na jaraaf yu fa ne ñetti jaraafam fa am na ku ñuy paree fal fal ñii defe naa ne dimanche dañ koy fal. muy ñeent muy ñeenta. nga ñëw wakaam am na ñetta ak wenn tamit. non ñeent moom wakaam. non non non loolu kooku du du jaraaf parce que jaraaf day am. daa di xaw a taaru tuuti di jekkal ay affaire mën a puudaru mën a faselu. mais jawaab yoo xamante ne sa waay yàlla xam doy na amul njëriñ mu mel ni jigéen yoo xamante ne du soli koket du cekki cekki foo ko fekk ti sa kii non non ku jigéen day am feeling su ko defee ñu mën a wax ne kii ku jigéen la xam nga dinga doon yéen ka jigéen day am foofu la affaire mm-hmm. tey noonu dinañ ñëw ci ñeent jaraaf. programme yi ngeen amul ñeent loolu duma si discuter ah, parce que gis nga man su nekk nii am naa fulle ni xam li ma doon lan la. te bëgguma wax kenn lu ko naqari. bëgguma wax kenn parce que dëgg gi ma si xam. bu amee sañ-sañ ñeneen am sañ. non non mën nga leen ko nangu déedéet parce que di ngeen leen di invité ñuy wax lu ñu bëgg. Mm. di wax di sos man du ma sos. Mm. su ma toog te man ma faa wax dëgg ma bàyyi dañ koy teg si yoon. man dama bëgg bu may wax dara fii xam naa ne waa Wakaam yëpp après lañ koy seetaan mais nañ koy seetaan du yem Wakaam parce que jaraaf Youssou Ndoye mooy wax si tele bi tey ñëpp incha allah dañuy toog di xaar. waaw léegi nañu loolu moo tax may bëgg di wax dëgg. jàmmarloo di bëgg suuf si nga xam ne. amuñu dara luñ si war a wax gis ne ay nit dañ koy pàccoo. non bëgg nañ ci am nañ ci wàll. dañuy fo fo. ah yéen seen yéen seen télévision toujours ngeen teg fa benn documentaire. ba ay gaynde di xeex lan la ñuy xeex nga dégg tubaab bi si ni mu ko expliqué seen délaillement mais damay comprendre mu ne euh, dañuy seet kan mooy si buur gaynde gi dafa jàll si beneen wàlla fekk fa kilifa kilifa googu lay xeexal pour man a xam ndax mooy doon kilifa gi wala dé am déet su ma kilifa xanaa ñun ñu mën am kilifa ko d'accord nga waaw ngor sama ne dafa am ñeenti jaraaf ñetta ñeenteel baa ngi ñëw ñu ne bon yoof yoof am na ñeenta est-ce que dégg nga wax bi wakaam am ñetta ak tamit léegi li nga xamante ne moom mooy tool yi su fekkee yàlla dafa def mag ñu waxoon ko fi yàgg na ñun ñii si ngu rek Ablaye Wade waxtaane nañ si Ablaye Wade xool ne lii na mën a ne mu ne ngoon na fexe ñu doon uti pexe pour jox dëkk bu nekk dix hectares avant ñu tas aéroport bi fekk xam nga monument bi fii lañ ko joxee tout ça là yooyu yëpp ay liggéey la c'est bien parce que réew mi la ñuy defar man garaaw loolu garaaw pour man xam nga la garaaw nga nekk si dëkk bi doo doo jaraaf xam nga jaraaf mooy lan président de la république locale est que dégg nga fi li may leen yëg yéen seen de may président de la république locale fii boo demee si Jolof Omar Gueye Samba da lay wax may président de la république locale fii boo demee si Jolof Ngoy Koudia loolu la lay wax mais xamoon si am importance waar mag ñi dañu wax ne c'est ça maa jëkk dégg si Jolof Mbay Ngayaan bu yoof mu ne seentul naaj jarul puusante ma ne foom punkal mi wax nga de foo taxaw seen naa yi bu dee jaraaf nga foo taxaw liggéey xam nga liggéey jaraaf. Mhm. defaral nit ñi waxtaan ak nit ñi doxal jàmm fii. rek leen dinañ si ñëw moom mais bon. Mhm. su fekkente ne mag ñi dañu wax. ñun 2009 la non 2010. Mhm. ñu wax si yaakaar na ba état bi di seet nu ñuy loolu suñ si ëgg si waatee ndaw yi. non non no jaraaf Saliou Samba bu Ngor ak ay cadre yu nekk Yoff ak ay fay yu nekk si biir APEXI bu Yoff ñoom ñoo jël programme bi ne dañ koy régler man day gis nañ ma euh, man dama ma ne ko mhm. président bi fi nekk boo nañ mën a waxtaan ak moom nañ waxtaan ak moom bindab leetar baa ma ko jëkkee proposé dañu wañ mais bi ñu demee ba si biir keroog ba Yuusu Mbeng rakku jaraaf Mbay Ngiraan bañ koy rob robee ba génn si koor daaw bi moom jaraaf Saliou moom moo wax ne ma li nga doon wax gis naa ni dëggaleen nañ ko def waaw mais buñ demee ci diggante bi ñuy jël déedéet déedéet du ndaw yooyu ñii ay bëyu lañu rek xaaral rek man dama lay wax li xaw du du ma tappale jaraaf Saliou moo ma wax loolu ba ñu jógee foofa ñoom seen boppa yónnee nañ ndaw ma jël Baye Mbaye Ndooy jël ku ñuy wax Mbeng Bukari ñu ngi fii di dund ma ne leen dem leen ooy ji local parce que yéen organisation dem leen ñu dem ba ñu demee fekk réunion ba ñëw rendre compte lu ne ay ca xam nga plan bii ñu def nii histoire bi. waaw buñ ko waroon def sa jamono boobu Ablaye da nekk fi maa waroon a mooy xale yi li ñu wàcc jàmmarloo ak takk der yi wala seen mette nag mbooloo mu takk image yi de yàlla Alioune Montour Ndiaye ne mobilisation bu exceptionnelle la ñu def ma ne mobilisation amul woon foofu hmm. danu tuyande gun yi dugal ngor si coow est que de nga sax ñu may dégg boo demoon léegi ci Miller Gueye nen dina la wax ne si bés bi ñoom wax nañ préparé woon affaire bi ñoom ñoo ne. mais fi ko defee soriwul wakam ndax. Euh, ngor la ngor la waaw du fii de dañoo sóob du fii. walf nañ ko ci guy ga. lañ ko guy gi guy gi lañ xeexee. Hmm? xeexee yu guy ga dox ba jóge fa daal di. commencé dem ci tali bi. waaw boobu loolu yëpp dañ si àgg. Mhm. waaye lii am mooy. Mhm. ñoom ñoom. ñoo wax ne dañu bëgg a wax ñoom bi ñuy fii ma ne leen man maa laaj jaraaf ngay xujaa ngi toog fekk jaraaf Momar Gueye Samba génn ma ne leen yéen da ngeen bëggoon ñu daje waxtaan mais waxtaan bi ngeen bëgg te jaraafi yoof du ko fekkee te jaraafi yoof ñoo yor yoof ñoom ñu ne ñoom ñoo yore ak commission mën naa yore yoof yor yoof parce que APECSY moo yoroon xaalis yoof léegi APEXI bii yoroon xaalis yoof jaraaf yi toogoon doon leen supervisé nii heure bu la neexee ngoon ñu béykati jaraaf yi uti naa wakaam wakaam xaalis wakaam mi ngi si jaraaf yi damay signé jaraaf Omar Gueye Samba signé jaraaf Mbour Koudé signé ñu door a jëli chèque bu dee wax bi léegi ñoom noonu la ñuy seen dëkk def avec ki xamat cadre bu réussir la si li muy liggéey mm. su retraité ab iñaan lay doon maladie moo koy dab bu ñu wax kañaan loolu moo dal kunu cadre yi ngay gis nii. kon cadre yi yor mobilisation bi mbooloo mi topp seen ginnaaw da nga bëgg a wax daal ay rancunier lañ. rancunier lañu et puis dañu nëbbatu xam nga li ma si naqare. kan lañ nëbbatu. xam nga man jamono bi may jiite xeexab wakaam dama sew boo ma fëlee sama damm mais damay xaw su ma la waxee ne suma arrestation bu mujjee yëg naa ne dañ may arrêté. ku mel ni Moussa Diagne Baye Moussa jaañ xam na ne man danañ ma arrêté mais terewul ma continuer si li ma doon def parce que loolu moo laa gisoon moo mooy yoon. mooy sa coow ak bàcc li jàll. waaw mais moom dañ ko dénk lii man ñu dénk ma lii liñ ma dénk nag fu dem moom du ko yóbbu parce que ñu dénk la nga cargan ba keneen jël ko këf ko yóbbu ko loolu la ma doon bañ. léegi nan lay mën a nekkee ñoom seen tool yooyu nga gis yëpp. waaw mais nam garaab saal yu kese si nekk. jaraaf yi ñëw nañ fii fii fii ma toog nii fii la ñu toog barkaata démb fii la toog kenn ku nekk xam ne ñoo yow ànduloo si. mais yow jaraaf nga xam nga jaraaf bu ñuy xool euh, li ko tax a jóg mooy kuy liggéeyal askan wi waaw mooy. Euh, dëgg yàlla jaami askan wi waaw waaw yow. Hmm. am lu muy sàkku bëgg hmm. ndax rafetul nga jàppale leen ci loolu. non bañuma askan wi laaj. nanu ko laajee laa d'accordul benn jaraaf d' accord si dama ne wax lan moo tax d' accord da li ma wax dëgg ma réunion nañu fii. Mhm. jóge fi dem seeti préfet. baa nu demee nu fekk jaraaf Saliou Samba bu Ngor man lu leer laa lay wax bay boo ku mu bëgg porter plainte porter ma plainte man yàlla rek laay waxal moom ak Ibou Diagne mu wakaam Ibou Diagne ab cadre bu nekkoon Sonatel est-ce que dégg nga wax ci mhm. ak rakam Bamar Samba. Ba Mar Samba rakki rakki jaraaf ja la d'accord nga. Ngor mhm. benn jaraaf laa li woon ba léegi ak maire Ngor est-ce que dégg wax ja ak euh, euh, euh, kii xaw ma naka mu tuddee sax loolu loolu mooy lan. Hmm. ay waa Ngor kese la sax. xam nga ñu ngi koy wax ci Ngor yoo foo kaam. du bàyyi dégg nga ma dañu sàcc turu Ngor yoo foo mu la tànk. mais ñoom loo leen meree. ni ñu ko laajee ak ni ñuy doxalee di beddi gi di def yu kenn xam nga mës a bëgg dem ci seen réunion ñu ne la man bu fa taxaw man foofu ca man réunion bu moo bëgg a dem na ne ma doo fa wax la mm. cadre yooyu mm-hmm. ñoo bëgg baat bëgg tey attention liggéey opposition opposition si biir maa ko wax ah coow lii coow lii ñu si biir dañuy nekk ci suuf di xam ñu ngi si biir ñii yeewoo liggéey boobu nañ ko liggéey ku si bëgg liggéey liggéey boobu agsi si man dinaa la ay point yoo xamante ne ku ko gëstu fekk kasi dama ne du wakkaam ngor yoof xam nga ngor wakkaam ngor yoof lu mu tudd mm-hmm. tànk waaw ñoom tànk lañ tuddee seen waaw dañuy soob lu tax bii passé wax tànk fii man maa ngoon seede ñoom jël na fa parole jaraaf mbay nga daan jël na parole euh, euh, euh, jaraaf sabur koy jël na parole ñëpp jël nañ parole bañ sa jógee ba yaakaar ne kat dañuy jox suuf si pour que dëkk bu nekk dem seet xataay nga jëm ko yàqali xam nga la nañ def dañu demaat pële ut quelque t-shirt xam nga cadre day nay ñaari li si ëpp. Hmm. day nay. sans ah, t-shirt kat nag yaa ngi leen di xas waaye dama nanka dama lay wax ñuy cadre wakaam fii. dégg nga si xam nga lu wakaam ñoo nay bon. yii moo tax ma wax yii laa xam. Hmm. xam nga mbedd di wakaam laa xam. waaw c'est vrai. dañu association bu tudd nuyoo la ñu taxawal. Hmm. ñu may dégg ñoom. waaye ma tudd nuyoo. def assemblée générale ba sa yoof ñëwaat tey jii tudde tànka loolu mooy lan. gën a dajale gën a yaatu. déedéet nga mooy lan. Hmm. mooy Wakaam Ngor Yoff tànka mooy fii la ab tànka yem boo jéggiwaatee beneen ab tànka yaa ngi koy dugal si géej gi loolu moo tax mag ñi tudde ko tànka ak ah, xam nga wan hmm. was wi was yi ngeen di togge bu ñu ne ñetti tànk la am xam nga ñu ne lii fii mooy was wi lan nga koy mën a changé ay nuyoo ab loxo ëpp na tànk lañ tuddee seen bopp nii. bi ñu woowee tànk mooy borom doom bi borom doom bi tànk yi dëkk fii. Mm-hmm. mais yow bëggoo woon dem seen réunion ngor ñu ne la boo koy def. man gasal kaam ñëw wakaam door a ñëw. man dinaa jëm foofu si réunion boobu. waaw am na wala amul. man. Mm. ma sa wax loolu. ñoom ñoom am nañu fit boobu. collectif bi. ñoom ñooñu fa nekk ci ay cadre sa ba nga tëjee ñoom si biir kër Jaraaf Saliou ñuy réunion baa nu waxee laa nu war a ñu ngi dund ah dama leen saaga waaw si biir réunion. te tontu wuñ. tontu man ba ma tontoo tey bu subaa jàmm doo ma tontu de danaa la koñ fëgg la ay directives bu. ah man. day xeex ba léegi nii ba rek maa ngi wax mbooloo mi ne dama bëgg su ma yàlla defalee ba mu am soixante-dix ans dinaa rey nag rey yépp ñu cere defar soos ut mburu defar loogu joori la def. Euh, jubilé ah jubilé jubilé kañ la fii kañ la ah rek da nga bëgg xam may at bi maa gis ni calcul la ma masa man <laughs> ñi ma jàngal xam nañ kaay boobu ñu war ko xaar rek comme fête bu rëy la nar a doon invité kaay boobu rek yàlla nañu si yàlla yóbboo du moom non non non lekk man du ma dem xam nga man sama bopp fi may gis nii waaw euh, ñoom liñ doon def noonu ñoom kese la. nit askan wakaam ak ngor. dañuy wax yoof bokkuñu si. waay waay waay wakaam ñaati nit dafa nekk si wakaam dañ koy compter yoof ñaati fa nekk dañ koy compter. mais yow a nga mais ñoom war nañoo mën a laaj ci suuf soosu nga xam ne seen i maam ñoo ko. fi bàyyi nguur laajte woon ko ñu joxe ko pour ay rapport ñun ñoo ko doon laaj. Mhm. borom doom bi tànk yi loolu mooy seen i warugar. ma ne réquisition la wax la règlement bi li ma si wax. Mhm. mais na Sénégal nag ñun ñëpp ko bokk xam nga ñooñu ngay gis noonu waxuma waa Ngor ñaa ah. mais ñii si jógee fii dëkk Wakam am na si ñoo xam ne xam nga lu ñuy kaas mm. xam nga lu tax boo ne waxee jaraaf Youssou Ndoye sibru xa nag sibru xa laa la wax nu saaga ma ba mandi waaye bu ñu génnee jàkkaarloo wuu mm. du ma saaga ah yow comme que da ngay kojaate kay di dóori direct man mm. man lu ma nit jiiñ jiiñ ma ko yàqal euh, war a laaj laaj xam nga mag ñi dañu wax ne booy wax dara ne yaa ko moom suuf si yaa moom da nga koy gor wala nga jënd ko wala ñu abal la ko wala ñu sarax la ko wala nu may la ko juróom yi mooy juróomi moomee lii wóor parce que buñ la dénkee affaire jàmbur dañ la ko dénk mais lii nga moom yaa ko moom mais man lu ma mënul comprendre mooy ay boo yoo xamante ñu woon ci maire yële passé mhm. dañ leen gagné ñu nekkoon fii boo yenn yi teg fii bi fii béyden bi kër boolu kër see bécco sama xarit bu baax bi yaa naka yàlla doolu jàmm fii ñu def si yoo xamante ne kenn mën la wax na la mhm. waaw continuer ngay gis boobu si bor boobu yooyu yëpp ñoom ñoo ko cax-caxajee waaye caxa caxajee loolu caxa caxajee fii cité bii 373 cent parcelles la woon il paraît mhm. est-ce que dégg nga wax bi ñu jël ko saax saaxee ka tey ñooñu ñoo yor. mais ñoom nan la amee sañ-sañu saax saaxee loolu te yéen. Eh, jaraaf yi borom doom bay tànk nekk fii looloo ko taxoon na ba heure ma jot rek ñu yéen a ma yóbbu yow mba seetloo ma si kaso bi looloo tax waroon nga maa parce que man. booba temps dama xalaat ñàkk koo yëg rek. waaw mais euh, da nga ko waroon yëg na parce que da war am ay antenne fépp pour mën xam jaraaf ndax mu ngi fi wala mu nga si kaso ba comprendre nga. Mm. loolu moom laa gis ne du noonu xam nga yow sax xam nga loolu lii may wax yaa ma dàq jàng fuuf gisuloo opposition bi ni ñuy demee fi mu nekk nii. Hmm. Macky Sall gagné na si cinq virgule nangam wala nangam pour cent. Hmm. dégg nga benn partie bu ne non matu ko parce que xam nañ ne Sénégalais yi capable nañ pour def loolu ils sont intelligents mais xam nga lu ñuy def après. waaw seen recours xam nga la. mooy lan opposé waaw. kon yow ñi ay opposant leen jàppee. noonu la ñu mel. mais suuf si yàq ñoom bi ñu koy def xanaa yéen nekku leen fi ba mën leen cee nan ngay demander autorisation. Mhm. amaguloo autorisation nga programme léegi tam programme nga tam bu njëkk te amul autorisation. xam nga lu tax affaire bi mel loolu fippu la rek ngor ngor comprendre ñu woon man mere ma waa mais xam nga la laa mere ñoom ñii ko jiite dégguloo ma ne la ba ñu demee si préfet ñoom ñu ngi dem si cadre. tànk ñun fa leen leen fekka yéen lu ngeen fa doon wut boo demee ci préfet Dakar dara la wax ne jaraaf Youssou Ndoye day keroog ba mu ñëwee seen ñii si biir jaraaf Omar Gueye Samba dafa xëcc siis tag si bunta bi xam nga fekk ay nit yu waxtaan nga ñëw toog si bunta bi mhm. xam nga loolu mooy lan da ngay déglu ndax danoo wax dëgg wala danoo fenn est-ce que dégg bi mhm. ma xëccëb siis toog daam gay ne ma toogal si bii ma ne ko toogal foofu rek toogal rek eh yootul bële ngeen déglu leen kon da leen doon yeddu yeddu xam nga ko loon mm. pour xam la nu wax nu toog si bunta bi mm. seen ab réunion tas préfet jëndu xam nga lan doon wax seen préfet waaw waxuma délégation wakaam rek de déedéet jaraafi ngor yoof ak wakaam borom doom bi tànk borom doom mm-hmm. bi sana jéen moo représenté woon yoof jara sant gi da Omar Meng dañ ko oo jotuñu ko buñ ko jotu mu ñëw parce que si guddi gi xeex bi si guddi gi la ma oo dama jaraaf li ñaaw na euh, euh, euh, doom ji moo ko doon représenté démb jaraaf boobu ñëwul jaraaf kan bi ngay wax noonu bu ngor bi jaraaf kii Mbay Sàmba jaraaf ngay xuja ñëw na fii. kon daal benn jaraaf ci Ngor Yoff Wakaam rek moo ànd ak collectif bi. di moom kese la de. mooy Saliou Samb bi ngay wax. Saliou Samb daal moo ànd ñoom. nun nag li ngeen see wax ni xam nga pour la. kon da ngeen dugg ci préfet ñoom liñ liñ fa gas ngeen suul ko. nu wan ka ne ka du noonu nun li noo wax moo la nanu bàyyi xale yi xale yi defuñu dara mag ñii ci dugg ñoo la affaire bi ak cadre yi dégg moom te ay opposant lañ. ci ni ay yow xaw ma ay clandestin lañ sax. ba ah. waaw. ay notable clandestin dala am parce que bu fekkente ne jox ñoo no ba tànk nga ne tey ma am ka loolu lan la man jaraaf yi su ndoy war naa man a jóge fii rek parce que maay jaraaf yi waxaam rek ma daal déposé candidature si si si si si présidentielle yi la ñëw euh, loolu la mu doon fuuy ak dof dofu wala de mais ñoom est-ce que gisuñu ne yéen jaraaf yi li ñu leen di xaaree dafa am lu ci sooxe moo tax ñoom tam ñu jël seen responsabilité rek dama ne la man sama bopp bi ñëwee nee naa leen li ngeen ma dénkoon mhm. bañu ma ko mais nanu waxtaan ak nguur gi parce que waxtaanaguñu ak président mais ñoom nee nañu président tam dafa am lu mu diggee woon ak ñoom bi muy campagne loola sa campagne la waaye eh, campagne fii gis nañu fi la nekk si campagne gis nañu ko sax si bitim réew gis nu ko États-Unis gis nañu ko France xam nga campagne na la kaay ma nax la politique xaw nga ne nag kama ko tudde ah teel ma seet bi rek ma yëg ba ma yéegee ñu ne bi doo jot a yëg de dégg ma ci tey jii tey ñoom lii du def teguñu ko fenn laa la bëgg a xamal parce que lii dafa rafetul ci réew rafetul ci gox ku ko dégg ne way lébu yi lébu yi fekk du lébu yi métis yi yi peut ñoo def loolu wala ñeneen mais bu ñuy war wax nañ leen bàyyi ñoo mu ngi mel yow rek ñoo naka mu tuddati OCI bi xaw francophonie bi. Sénégal yëpp a demoon. déedéet. kañ président moo dem moo ñi mu tënk ay ay branche yaa mu am si réew mi ne téye leen ma lii téye leen ma lii du loolu walam réew am jiit xam nga. bii passé nii bàyyi si njiit yi seen loxo laalul ci ni ñu dogal dogal ci suufi aéroport bi dégguma ko jëndu leen ci jaayu leen ci jaayu wu leen ci defuñu si dara nu ngay xaar daal mais leb leb la ngeen ci wala déedéet amu leen ñu ngeen lebal lekk laaluñu si dara ndey xam nga lañu def dañu hmm. croiser les bras la xaar borom réew mi nekk daal monsieur le président nu laa xaar bëgguñu réew mi bay na parce que war noo bay réew mi defe nga ne lii am keroog am na organisation amul organisation ay nit yu mer su ma ko jiite woon beneen plan laay doxal bu dul bi bu ma demee ba ñàkkante des mhm. ah non non ban plan guérilla ngay def wala non bàyyi kay gor wala nga jënd ko wala ñu abal la ko wala nu sarax la ko wala nu may la ko juróom yi mooy juróomi moomeel yi wóor parce que bu la dénkee affaire jàmbur dañ la ko dénk mais lii nga moom yaa ko moom mais man lu ma mënul comprendre mooy ay boo yoo xamante ñu woon ci maire yële passé mhm. dañ leen gagné ñu nekkoon fii boo yenn ñoo toj fii biir fii beneen bi kër boru kër seebe ci sama xarit bu baax bi yàlla na ko yàlla dolli jàmm ñu def ci yoo xamante ne kenn mën la wax na la mhm. waaw continuer ngay gis boobu si bor boobu yooyu yëpp ñoom ñoo ko cax-caxajee waaye caxaj-caxajee loolu caxaj-caxajee fii cité bii trente cent soixante treize trois cent soixante treize parcelles la woon mhm. est di nga bi ñu jël ko saax-saaxee ka tey ñooñu ñoo yor. mais ñoom nan la ñuy amee sañ-sañu saax saaxee loolu te yéen jaraaf yi borom doom bay tànk nekk fi looloo ko taxoon na ba heure ma jot rek ñu yéen a ma yóbbu yow ma seetaloo ma si kaso bi looloo parce que man booba temps li yëg rek waaw mais euh, da nga ko waroon parce que da nga war am ay antenne fépp pour mën xam jaraaf ndax mu ngi fi comprendre nga mm. loolu moom laa gis ne du noonu xam nga yow sax xam nga loolu lii may wax yaa ma dàq jàng fuuf gis nga opposition bi ni ñuy demee fi mu nekk nii. Hmm. Macky Sall gagné na si 65 virgule nangam walla nangam pour cent. dégg nga benn parti bu ne non matu ko parce que xam nañ ne Sénégalais yi capable nañ pour def loolu ils sont intelligents mais xam nga li ñuy def après. waaw seen recours xam nga la la. mooy lan opposé waaw. kon yow ñi ay opposant nga leen jàppee. noonu la mel. mais suuf si yàq ñoom biñ koy def xanaa yéen nekku leen fi ba mën leen cee nan ngay mhm. autorisation. man mere ma wàggoo mais xam nga la laa mere ñoom ñii ko jiite dégguloo ma ne ba ñu demee si préfet ñoom. ñu ngi fa dem si cadre tànk ñun fa leen leen fekka yéen lu ngeen fa doon wut. boo demee si préfet Dakar dara la wax ne jaraaf Youssou Ndoye de keroog ba mu ñëwee seen ñii si biir mu xëcc siis toj si bunt bi xam nga fekk ay nit yu waxtaan nga yow toog si bunt ngay déglu ndax danoo bi mhm. ma xëccëb siis toog daam gay ne toogal si bii ma ne ko toogal rek toogal rek eh yow tur bële ngeen déglu leen kon da leen doon yeddu yeddu xam nga ko mm. pour xam la nu wax nu toog si buntu bi mm. seen ab réunion tas préfet jëndu xam nga lan doon wax seen préfet waaw waxuma délégation wakaam rek de déedéet jaraafi ngor yoof ak wakaam yan jaraafu ngor yoof ak wakaam borom doom bi tànk mm-hmm. sana jéen moo représenté woon yoof jara sant gi nga wax Omar Mbengue dañ ko oo jotuñu ko buñ ko jotu mu ñëw parce que si guddi gi xeex bi si guddi gi la ma oo na ma jaraaf si ñaaw na ñaawlu na loolu moom euh, euh, euh, kii na ko sax ku ngor baa demee jaraaf sowru doom ji moo ko waroon représenté démb ji jaraaf boobu ñëwul jaraaf kan bi ngay wax noonu bu ngor bi jaraaf kii Mbaye Samba jaraaf kon daal benn jaraaf ci Ngor Yoff rek moo ànd ak collectif bi. moom kese la de. mooy saalu Samb bi ngay wax. ñoom nun nag li ngeen nga pour kon da ngeen dugg ci préfet ñoom li ñu fa gas ngeen suul ko. nu wan ka ne ka du noonu noonu li noo wax moo la nanu bàyyi xale yi xale yi defuñu dara mag ñii si dugg ñoo la affaire bi ak cadre yii dégg te ay opposant lañ. ci ni ay opposant lañ yow xaw ma ay lan clandestin lañ sax. ba ba ba ba ah. waaw. ay notable clandestin dala am parce que bu fekkente ne jox ñoo no ba sànq nga ne tey ma am ka loogu lan la man jaraaf yi su ndoy war naa mën a jóge fii rek parce que maay jaraaf yi waxam rek ma daal déposé candidature si si si si si présidentielle euh, loogu la mu doon fuuy ak dof dofu wala de mais ñoom est-ce que gisuñu ne yéen jaraaf yi li ñu leen di xaaree dafa am lu ci sooxee moo tax ñoom tam ñu jël seen responsabilité rek dama ne la man sama bopp bi ñëwee nee naa leen li ngeen ma dénkoon mhm. bañu ma ko mais nan waxtaan ak nguur gi parce que waxtaanaguñu ak président mais ñoom nee nañu président tam dafa am lu woon ak ñoom bi muy campagne man sa campagne la waaw eh, campagne fii gis nañu fi la nekk si campagne gis nañu ko sax si bitim réew gis nañu ko États-Unis gis nañu ko France xam nga na la kaay ma nax la. politique xam nga nag ka ma ko tuddee. ah. Hmm. teel ma seel bi rek ma yëg. ba ma yëgee nga seel bi doo jotee. dégg ma ci ma tey jii tey ñoom lii ñu def teguñu ko fenn laa la bëgg a xamal parce que lii dafa rafetul ci réew rafetul ci gox ku ko dégg ne way lébu yi lébu yi fekk du lébu yi métis yi lébu yi peut-être ñoo def loolu walla ñeneen mais ñii war a wax nañ leen bàyyi ñoom mu ngi mel yow réunion euh, euh, naka mu tuddati OCI bi xaw ma naka mu tuddati francophonie bii. Mhm. Sénégal yooyu pas demoon. déedéet. président moo dem moo ñi mu tënk ay ay branche yaa mu am si réew mi ne téye leen ma lii téye leen ma lii du loo walam réew ab dëkkatam dal am jiit xam nga bii passé nii. bàyyi yéen si njiit yi seen loxo. ñu dogal dogal ca suufu aéroport bi dégguma ko jëndu leen ci jaayu leen ci jaayu yëbbantewu leen ci defuñu si dara nu ngeen xaar daal mais leb leb la ngeen ci wala déedéet amu leen ñu ngeen lebal lekk àl leen ko laaluñu si dara ndey xam nga la lañu def hmm. dañu croiser les bras la xaar borom réew mi nekk daal monsieur le président ñu ngi laa xaar bëgguñu réew mi bay na parce que war noo bay réew mi defe nga ne lii am keroog am na organisation amul organisation ay nit yu mer la woon rek wàcc ci mbedd su ma ko jiite woon beneen plan laay doxal bu dul bii bu ma demee ba ñàkkante des. Mhm. ah non non. ban plan guérilla ngay def wala. non bàyyi loolu. wala boksante euh, comme da ngay ko jaate <laughs> xam nga adduna bi gars yi dañuy bëgg a xeex te da ngay tàmm bi nga nekkee xale. boo màggee ku lay cokkaas nga xam fu mu taxaw bu taxawee côté gauche nga lal ko goos a nekk benn vétéran daal. mu ngoog. xam nga fi mu nekk nii suma âge benn boy bu doon wax dama yéegi wax di la ree di la ree ba ni taas mbëkk waaw <laughs> mbëkk boobu bu ma la koy duur dama la koy duur si diggante bakken bi ak jëbi su ko defee da miir foofu la affaire bi nekk nit lii ñu war a def nañ koy def réew mi daal man laay laa wax ni noonu dañu ko garder loo mhm. te dinaa la si waxtu ndax mhm. boroom doom bu tànk bu mënta doon li ko war mooy defar réew ñii si état bi dafa am lu ñu war a def mais lii si si si si euh, coutume bi mhm. dafa am lu ñu war par exemple xam nga démb la woon alxames ah mhm. tuuru fi wakaaw waaw dafa ngeen ne ñun am nañ jot a jël ay su ay xeer rek di ay kuur boppi kuur di si sotti ay sooxa dama ko ñëw tey soo maa ko mënoon kaa njaar defar ko ba mu baax xale yii fa demoon sax am na ñu xamul woon lu xew am na si xale yoo xam ne dañ leen am nañ autorisation dañuy sitting est-ce que comprendre nga xam nga nit man boo pour man xale boo ko boo ko dugalee si yenn yi sax war nga ko baal xam nga dinaa la wax tey benn mm-hmm. ñoom wakaam bu fekkonte ne tey jii jaraaf yi su ndoy def ne eh, gars yi tel jour telle heure nañu daje place sangam heure boobu ku fa ñëw du fa xaj du dégg wax bi mhm. ngor su may xarit rek a fa nekk su may mbokk rek a fa nekk suñ leneen woon te jii jaraaf yi sundooy jaraaf yi mbii ñëw sa ngor dañuy réunion place ba kenn du fa xaj def nañ ko fii si ngor kenn xaju fa mhm. mais waxtaan moomu ñu jëkk lépp am déet dama ne kenn du wax ne moomuñu fii noo ko moom waa Fuuta ñoo moom Fuuta waa Dagana ñoo moom Dagana seeni Gine nga foofa nu nuy Gine ngi fii masumaa jóge fii ne ma ngaa tuuru ji euh, Richard Toll déedéet fii lay tuuroo su may xambaa ngi fii. te lu tax lébu bëgg suuf. lu nu bëgg a suuf. lébu bëgg na suuf te. coow suuf rek ngay dégg ci lébu yi. bu ma la tontoon ndax di nga ko génn. Hmm. sunu suufu am valeur lu tax jullit yi bëgg a màkka ah du lay wax ne mooy ngeen bi dëkk d'accord nga dama ne nun daal nun noo am ay malaat malaat yooyu nu ngi leen di baalul ak réew mi ñu ngi ñaan yàlla defal leen jàmm ñu wér ñu ngi ñaan ñoom seen boppa ñu le gis nga ah, ñoom ay malaat lañ du ñu feebar feebar mas dëgg si si Ibou Sakho sëñ Ibou Sakho benn mhm. mu wax ne maladie la bu nekk si nit est-ce que dégg nga ca. muy lan. du ñaan xanaa yow Pape Diouf sax si morceau bi bees yi da nga ko naan iñaan baaxul yow déggoo la ko. kon ñoom daal maladie iñaan a leen jàpp. gis nga morceau bi dama toog si guddi nii rek boo demoon dugg si dëkk bi léegi xamuñ lay wax jaraaf dee baaxul la fi jaare dama ubbi rek kii bi euh, ma dégg mu naan naan si yàlla moo may ñii lu bari. may ñii tuuti ñii dara gis nga dara boobu noonu ma koy tuddee noonu la mittee nag pour na am garabam. événement boobu maa la ko wax ñoom nañu toog xam nañu coow laa ngi ko si dëkk bi. dëkk bi nag noo gisee dëkk beeg nekkin bi. ak temps yi envoi soldat Yémen bii nga xam ne moo tukkal jamono. xam nga Sénégal. Mhm. ñëpp ko bokk wax naa la ko fi waaye xam nga ñëpp yemuñu fii réew. ndakaaru bi laa lay jëkk a wax bépp chef de village bu nekk ci réew képp ku ci xam luy saraxas ndakaaru fi ñu toll nii amu fi lan mooy saraxu ndakaaru du nu sori foofu dama bëgg loolu dama leen def yee ñoom lébu yi mm. ñoom ñiy wax naan ay xam-xam lañ am ak borom doom bi tànk la noog wala nangam ak nangam mm. dama leen bëgg xamal ne man Jaraaf Youssou Ndoye fii laa dëkk Wakaam toxuma puusuma dee moom ma fi jële bañ na sax ba bëgg may bañ may jéem a nax pour génne ma réew mi ma toogi dama ne mukk la ma toog mm-hmm. dama ne ndakaaru lébu bu mënta doon ku ko fi xam na ko wax si rajo bi wala nga oo ma ma nangam soo ma waxee lii la kenn nag nit a xam si réew mi mooy kan benn nit rek laa la du la déedéet. man la man hmm. xam naa ko. ah kon kay ñaar lañ ñaar lañ wala hmm. yow rek la. ñaar mën hmm. a keneen. xam nga waxoon naa leen fii ni ñu ngi wax Gine Maymuna Gine Maymuna Gine Maymuna maamam ma ne leen ñoom Maymuna rek yéen si xam sëriñ bu si xam Maymuna nu mu santa dama ko wax. ba léegi waaye léegi soldat yi cee gis fitna da nga cee gis lu. suma si dara lu ñaaw man lu may dugg. damay sóor dund sóor dee. danaa la wax tey ndaw. Hmm. dama toog ak génn góor gu ñuy wax maam Alsaan Kan dina jaaxal nit ñi nag ni jaraaf fan la toogee maam Alsaan Kan maax Madou Samba Neta di pénitencier ñoo toog ànd ajjuma këram maam Neta xam naa ne fàtte na ko gis nga quatorze dix-huit quatorze dix-huit wala trente-neuf quarante-cinq bi fi njëkk a jóge dem guerre ba dan am problème fii si Sénégal. Mhm. xam nga Wakaam bari na ngay dégg Wakaam ay dëmm lañ Wakaam ni non xam nga lan la gàllaaj. da ñeme gàllaaj. waaw parce que booba mag ñi décès yi am si guerre bi ñu toog fii Sénégal dégg ko moo leen metti mhm. xam nga lu ñu def suñu temps bi léegi mu jeex. donc xaaral rek. waaw mu jeexee benn ci envoi soldat bi rek. oote ootewaat. ne Sénégal képp ku óolu Wakaam ak Thiel maam Alassane Kane ne ñu ngi dayee fii si bay mhm. ñu assuré Sénégalais yi ne leen ñii bu ñu demee bu ñëwaatee ne ñëw fi ñu kontaan kon ñii di dinañ dem ñëwaat ci lim bi ñu demee waaye plus déedéet waxuma loolu parce que ak gunu foofu ci sa walla moo tax ñu créé soldat dem guerre si la bokk si mhm. fan nañu war a ak lu te teg réew stable Mhm. wala déet. bon yow yéen sa patron sax laay wax. Mhm. bu ñu waxee rasulaay dara mu mer wóor na ma parce que dafa jàng alxuraan dafa xam alxuraan xam yàlla xam yonent bi fii ma toog ku ma laajoon juróom-ñaar ñi gën a xam alxuraan si réew mi foog ma boole si Sidi Lamine du dégg bañ na ko ba wal fajiri la tuddee boppam kaw kañ xam ne diine mhm. ngoon tey président Macky Sall ñu fal ko si 65 pour cent ulit fii si réew mi waaw mu am sañ-sañ yëpp ba am sañ-sañ ñu jël réew mi sax daal di ne kaay nu échanger ak Mali toogi Mali ñu ñëw fii waaye léegi mu leen soldat danoo dem ngeen a déedéet te beneen affaire. kon daal jàmm daal gis nga ci jàmm. te it daal hmm. mhm. mhm. Yemen. bu amee problème. suñu yoonu màkk am problème. benn noonu d'accord nga. Yemen bu amee problème. bu amul problème yàlla bu mu amati. Mhm. ba bu ñu toog fa si jàmm salaam ne non nga ni bakken ba dara desul lu ñu ñibbisee. Mhm. ba nu ñibbisee koppar yi nga xamante ne mënoon see fayeku amu na ko fii Sénégal. waa saraxu Dakar waxoo ma ko de. saraxu fan. ma ko. saraxu Dakar sondeel la suukar wala soo wala. dégguloo li ma la mm. ma ne. Mm. mën naa la wax sax la ay nag. Mm. mais du fañ koy jërëjëf d'accord jaraaf yi sunu doom maa lay sant di la gërëm yow mi nga xam ne jaraaf bu wakaam ma bàyyi la nga tàggatoo bàyyi jaraafi Cap-Vert bàyyi jaraafi wakaam yematuma wakaam ah Cap-Vert gépp may seen jaraaf maanaam Ngor Yoff bar ñi tëngee caaro ma wax la lu jaraaf amul fii si Sénégal mooy gis nga kii hmm. benn jaraaf yoru ko Sénégal lii lan la kii wakaama ko moom mais wakaama ko moom lébu gee moom est-ce que dégg nga wax ci mm-hmm. kii nga xamante ne moom moo dogal joxantoo bi ba mu ko laaj jot ñeenti fan wax naa ko joxantoo bi ba mu ko jotee sàcc nañ ko yóbbu ko yéen kaaka sàccoon yóbbu ko yéen amul jàmm da indiwaat tëngéej ma kaa indilaat xam nga man dama bëgg mu leer mm. lii ma nekk jarafi kabeer mm. ku mu metti da dee xam nga lu xew mm. sunu ëllërey maam ñoo seet jaraaf yi ba ma neex leen ba ma saf leen ñu ne waaw jaraaf bool jël nañ kon jaraaf Kaver tàggatool. tàggoo bi xam nga lan la. li muy ñaanal réew mi waaye tàggatoo bi xam nga la. boo demee carte carte carte autoroute à péage bi sunuy maam ma ko may yow ma ko may de man su ma xam fan kaay jaay léegi chargé laa koy def bu ma àggee ñoom bu ñu xoolee seen ordinateur ñu ngi may dégg. ba ma agsee bu jaraaf yi sundoy agsee daan chargé parce que moo seeni carte yam benn may nañ ma essence. sa maam yi ko may. waaw fi ma nekk nii vingt vingt litres d' essence fi nekk du ma la wax nag ban société la parce que dinaa te jël def ko suma oto dem <laughs> xaw ma kañ laa koy fay nag <laughs> du dégg mais dafa am loo xamante ne. waaw soo ko xamulee bàyyil. mooy tàggatoo bi daal lii nga xamante ne mooy affaire jaraaf. Mm. du volant oto. xam nga volant oto da ngay dem rek si gars yi ñu la nga dawal. Mm. déedéet bokkul. bi lan la la. affaire la mm. kii. ay mbóot la gépp xam nañ ne jaraaf ji ko fa mujj am benn jaraaf ñaar ñett ñeent juróom juróomi jaraaf jiitu luñ amuñu kii jërëjëf yàlla na nu yàlla doolu suuf maa ngi lay sant la wal fajiri mhm. yàlla na leen yàlla doolu jàmm defal ko télé yëpp waaye yéen la nga xamante ne moom leen yëkkati moo leen yëkkati muy jàmm si réew mi yàlla na leen ko yàlla defal amiin jërëjëf ñu yàlla na ngeen dund lu bare bare Sénégalais yi yal na yàlla yokk suñu fan xam nga ni ñuy toog ñu naan mag ñu njëkk ñu dañu amoon doole yal na toog ba réew yi si boppam naan waaye Sénégalais yi ñoo mën a gudd fan. Mm. ñu du duñu ko jëwee. jërëjëf c'est très bien ndey. Mm-hmm. Euh, papi. Mm-hmm. yal na yàlla defal jàmm. amin waaw yal nañu ko bokk ñun ñëpp jërëjëf ñu ngi lay ñu ngi lay sant di la gërëm garaaf Youssou Ndoye garaaf eh, Wakam mais désormais garaaf Cap-Vert <laughs> di sant di gërëm suñu auditeurs yi doon suivre seen émission sortie gërëm euh, Papis Mbaye ku baax mi nga xam ne moo yor wàllu technique bi di sant di gërëm Oustaz Assane Diouf ci réalisation bi du ñu fàtte Aline Monteur Ndiaye ci montage bi madame mbay Aminta mbay ci maquillage bi mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah